Euh, commerciales douteuses ñu japonais encore ce sont des menaces sur la ne. Euh, bah, lan pratique commerce douteuse. Mm-hmm. pratique est-ce que est-ce que vous ci ci facturation euh, surfacturation wala njëg ñu ñu c'est pas lui de régler ça xam nga def mm-hmm. contrôle de prix les ñuy ñuy xol. Mm-hmm. usurpation de fonction comme bi muy soog a ni mu ko defee woon xam nga bi dafa usurpation de fonction. Euh, dafa jël blogam dem dugg immeuble bi jàkkaarloo palais nu mu tëddatee. building building administratif jël bi gëm ak feuille di xool di bind. te moom premier ministre lañ ko jox loolu du liggéeyam loolu muy def am na ñoo xam ne moom ñoom loolu lañ fi nekkee loolu mooy seen liggéey du dëgg suñ débattee tamit ci terrain bi ne mu xëy na moom mooy lijjanti prix yi usurpation de fonction encore lay def yor yor kalkalpem daal di bind di xol ñaata lañ dépensé ak ñaata lañ def manam da doon audité xam nga mom momul audité jangul audit y a des gens yoo xam ne ñoom mom moom audit moom da doon audité audité la doon audité la doon la doon def mais je pense que lolu c'est pas lui de de le dire euh, chef du gouvernement la na yem place am mais euh, menace il a il a l'habitude de menacer que tu peux pas avoir une euh, une population et menacer cette population Moi, euh, à chaque fois il est sur la lancée de ridiculiser son président parce que pour moi, tu tu dois pas mettre ton ton gouvernement en mal avec les Sénégalais il y a il y a d'autres priorités que yi euh, war nañoo dégg ministre de la santé ci Covid bi ma gis ci lu ma jaaxal parce que euh, pour ñu demee ba benn sagaru clinique bu nekk fee ca euh, mooy wax mooy ñuy annoncer que Covid dafa am man j'étais choqué parce que pour man loolu buy am et c'est très grave et c'est très très très grave bu doon jamonoy Macky Sall la dinañ ne lutax clinique bobu nga xamné dafa yàgg soutenir Macky Sall di ñëw di déclarer né Covid dafa am ana ministère ana ministère bi ana nangam a nangam. mais le le le ministère a fait a fait un. Oh, y a pas d'après. mom tay bu amé renseignement bobu dafa wara dem gis ministre de la santé wala am na fu mu mën dem ba waxtaan ci c'était pas à eux de faire cette déclaration là. c'était pas à eux de faire cette déclaration ça rawaté ñom ñu xam fi ñu fété xam fi ñu far ndax neutre ñu suñu neutroon sax waruñu du ñom ñoko wara wax asama nak bañu ñu neutrele xam nañu rôle bi rôle bi ñu jouer ci ci li fi jotta xew kon c'était pas de faire cette déclaration là on a un ministre de la santé on a des responsables de la santé on a un ministère de la santé c'était pas à eux de faire la déclaration di wax ne Covid dafa léegi maa ngi foofu te sax dama fay dugg tuuti dañ ne ñi dee màkk Covid moo leen rey waa Amina Covid xanaa dina la tëral Amina Covid du la tëral ñi nga dégg ñu Covid tëraluñu man damaa daf maa tëral man tëral na ma 15 jours sax mu mosoo maa dugg feebar naa 15 jours 15e jour bi laa commencé Covid waa léegi xanaa kon ñooñu bi ñuy jógee Sénégal fii di dem màkk dañoo yóbbaale woon Covid bi ah loolu laa bëgg a xam. ñun am nañ suñu benn yaay bu ci gaañu yàlla na ko yàlla yërëm HLM la dëkk yaayu ñanga sama benn xarit moo doon àndal bu gaañu yaayam yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu avant Air Sénégal di ñëw am na beneen avion bu ñëw mhm. ñaata avion ñëw avant Air Sénégal. mooy ñu ñi doon ganale ci weekend bi weekend passé. ñaata nit ñoo ñëw ci Air Sénégal stigmatisé Air Sénégal bi nga xam ne moo ñëw indi ay nitam abu Diallo waroon na fi teew yaayam dafa jógee màkk. def nañ seen ngalale bu neex seen i mbokk ñëw heureusement ndax nit ñi bu ñu leen gëmoon pour wan leen ne ils prennent pas l'état au sérieux def nañ seen i ngalale. et et y a y a des pèlerins yoo xam ne démb à travers démb ak tey parce que tey gis naa bés bi le jour aussi mu def un reportage sur ça mais l'observateur démb def na reportage sur sur les pèlerins ñu nettali seen séjour euh, Makka ñu mu doon demee mais booy lire déggoo benn yoon ñu ñu ñu tudd fa.